biir di waxtaan ak yéen ci feebar bi ci mbas mi nga xamante ne moom moo lëmbee àdduna lëmbee àdduna euh, sonal doomu aadama yi muy le coronavirus te virus bi koy joxe di Covid 19 sonal ñu trop ñun Kër Massar sama yitte ci benn mouvement boo xamante ne mi ngi ci basé ak Kër Massar leader bi di ma Mamadou Ba. donc ñu ñoo ñëw actuellement tey comme suñuy élan ni ñu koy defee à chaque fois accompagner bàjjanu gox yi ak les agents de la santé. pour xeex virus bi nga xamante ne mooy la Covid 19 génne coronavirus ci Sénégal génne ko ci Afrique génne ko ci àdduna muy feebar boo xamante ne dafa sonal nit ñi mu am ay gestes barrières. yoo xamante ne moom mooy tax doomu aadama bi mën a wattu feebar bi mën a faggu boppam ci wér ci feebar bi wala boog feebar bi bañ ko dal gestes yooyu biñ ci gën a ràññee mooy di raxas say loxo saa su nekk boo génnee ak boo duggee wala boo demee ci bërëb boo xamante ne mbooloo daf fay daje. yu ci mel ni bërëb yi muy bërëbu fajukaay yi wala bërëbu jaayukaay yi wala bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ fay tase di weccoonte ay ay mbir euh, bu gannaaw rax sa loxo boobu mooy di takk masque saa su ne foo toll di couvrir sa gémmiñ ak sa bakkan euh, pour mën booy tisooli wala booy saqat euh, lor yi bañ a génnee ci yow di dal ci beneen doomu aadama ndax xamuñu doomu jàngoro bi fu mu ne beneen bi si des nag mooy faggu ay mbir yoo xamante ne dafay dimbale doomu aadama bi ba nga xamante ne li ñuy wax cas communautaire muy jóge ci wàllante boo xamante ne doo xam fu mu jóge ñu jéem ko arrêté dakkal ko ndax loolooy tax jàngoro ji dañ fii ba faaw Kër Massar sama yitte nag ay ndaw ñoo ci nekk ñoo xamante ne seen yitte du dara lu dul fépp fu waay ne di yëngu ci loo mën a yëngu rek ñu ñëw teg ci seen loxo jox la seen xel ak seen xalaat joxe seen doole ak seen énergie ak seen temps yëpp pour que ñu àndandoo ñun ñëpp ñu yeesal suñu gox ñu yëkkati suñu gox ñu suqali suñu gox na suñu gox bi nga xamante ne moom mooy euh, Kër Massar tey nag ñu ngi ci district bi comme ni nu koy defee def nañ ko unité onze def nañ ko douze def nañ ko neuf def ko tey ci biir district bi nga xamante ne moo lëng district yu ndaw yëpp euh, pour questionner accompagner waat bàjjanu gox yi accompagner waat acteur de développement yi accompagner waat acteur de la santé pour li nga xamante ne mooy Covid 19 jeex tàkk tàkk tàkk ci Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal nag di leen gërëm yéen waa ñaay